donc lu rafet lay def moom tamit parce que rek pour rek solution bi ñëpp mun koo comprendre ñu déggul français xam lan la Ousmane ko wax lan mooy idéem lan mooy gis-gisam lan mooy vision am ci Sénégal lan la gis ne buñ ko toppee dana yóbbu suñu réew mi kanam donc na ko ñëpp gëstu bu kenn bañ man bëgg naa trop nit koo xam ne danaan boo du ma def lii waaye nag boo nee duma def lii dangay wax lu tax duma def loolu donc bul ne. bëgguma Ousmane Sonko te gëstuwoo la mu wax donc loolu mooy wax ji voilà ayca bismillah waaw kon dafa am ku bëggoon dugg ci biir pour waxtaan ak nit ñi moom laa doon jéem a accepté noonu waaye jàllagul Bamba Gueye aywa salaamaaleykum aywa aywa aywa Bamba. alors. <laughs> ñu ngi nga def. sant yàlla wér. yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant ñu ngi sant. métti na de. waaw dëgg la <laughs> ndeysaan. métti na métti na. torop torop. dama dama dugg. Uh-huh. justement pour euh, compléter wax ji. waaw. pour ñu gën a yee famille bi. dëgg la. parce que bu ngeen xoolee fi ñu tollu tey. Mm-hmm. avancé nañ. Sénégal. Mm-hmm. depuis mille neuf mm-hmm. def nañ benn pas. mais xam nga nag wax il faut que ñu jàng dëgg. déglu wax. dëgg la Sonko. Mhm. xale lax boo xam ne bi mu génne. Mhm. si ñi njëkk a ànd moom. Mhm. toog di réunion ay Skype. laa bokk. dégg nga te man bàyyi laa joo xam ne auprès de lui. dama ko daan def ay critique mais positif mhm. positif mhm. mhm. parce que doomu réew mi mu yow di keneen ku si jóg bëggu réew mi bu tege intérêt réew mi moomatu ko moomatu ko doomu réew mi yëpp a ko moom te souvent bu ñu sagesse dafa baax si réew man carte boobu nga yore. Mhm. léegi laa amaat carte parce que suma carte bi jiitu woon dama ko lakk 2011. waaw devant tout le monde dama ko lakkoon pour wone ne du ma voté. c'est du ma am beneen comme sa bos. Mhm. waaw. léegi nag fi ma jëm. Mhm. mooy nit doomu aadama yo yaa ngi jóge lim Mohammed ibnu Abdallah. Hmm. wax affaire u ndigal. waaw boo jëlee Mohammed ibnu Abdallah jël Cheikh Ahmadou Bamba jël suñu maam yooyu yëpp. Hmm. ñoom nga commencé si Mohammed dañu amoon luñ gëm di défendre seen peuple dañ jógoon xeex. Hmm. daf la xeex. ñu nag en général dañuy wax te duñ jëf. dëgg la. wax ji bari na. te dañuy wax mal Ousmane Sonko fi mu toll man musuma jox homme politique Sénégal musuma voté si suma kër àdduna parce que musuma d' accord ak ñoom ak à cinquante pour cent musuma si mmh. d' accord kenn. Ousmane bi mu génnee vision vision. Mmh. waaw. li may wax léegi nag moom moo ko wax man waxuma ko. moom man nee naa publiquement pour la première fois de ma vie jox naa soixante pour cent si suma yaakaar Ousmane Sonko. Hmm. Ousmane nee na vision le génne. te Ousmane comme ni ngeen ko xamee Sénégal dafa am ñum àndal dafa nekk ci benn coalition. Hmm. ñoom RND Diallo Diop Blondin ñoom yooni askan wi ak ñoom Madièye dafa am groupe parti yu mu àndal. waaw. il faut que famille bi xam ne ñi mu àndal yëpp dañ nekkoon si benn liggéey depuis un an et demi mooy liggéey boo xam ne programme la boo xam ne mooy chiffre vision bi. Mm-hmm. vi Ousmane wax na ko si làmmeñam ne la leen vision la dinaa ko confirmer par un programme. programme bi mooy wone faisabilité am. par voilà faisabilité mooy wone de est-ce que réew mi attan na lii am na alal ji ak nu mu koy defee ak kum koy defal. Hmm. kooku bu ko tegee ba pare nag. jeexul de jeexul y volonté politique la volonté politique boobu foofu ngay duggee Khoudia Ndiaye dugg fa Massamba dugg fa maçon bi dugg fa peuple bi yëpp dugg fa gàddu ko ak moom parce que buñ ko gàdduwul ak moom Ousmane Sonko du jaar du vivre un an te rey ñu ko maa ngi ñëw de waaw Ousmane Sonko munul réussir lu Cheikh Ahmadou Bamba bëgg bëggoon def ñu génne ko 30 ans munul réussir lu Lat Dior bëggoon def ñu rey ko bëggut li rey munul réussir loo xam ne lii El Omar xalaatan nañ ko ñu rey ko. munul réussir loo xam ne lii Patrice Lumumba bëggoon na ko def ñu rey ko ba si dernier en dat ah Thomas Sankara. parce que Sonko li mu wax mooy li ñooñu ñëpp xalaatoon tubaab bi bañ ko moom daf koy def loolu la wax en gros bu ngeen liiree bu baax. Mm. waaw moom système bi muy wax loolu la de du système jël. parce que boo calculer li Ousmane Sonko di wax yéen li ngeen di wax yëpp li maki di pàccoo di defar ay stade di lekk ak gars yi gars yi yuuxu kooku 10 pour cent la rek tubaab yaa ngi jël 90 pour cent. loolu 10 pour cent rek la. waaw lu ne gisul Ousmane daf hmm. pour cent yooyu dootul dem. Hmm. donc kooku bu fekkee ne Ousmane dem na ba génne programme boobu ba koy waaj teg tout le peuple sénégalais doit être engagé derrière ce programme ce n'est plus Ousmane Sonko c'est le programme qu'il faut mettre en place. voilà c'est ça. moo tax moo waxoon dafa waroon am élection programme. voilà daa waroon am élection programme avant élection présidentielle. waaw dëgg moo tax ma waroon tànn. voilà yow dégg nga man. moo tax man ba tey munu ma taxaw farak kenn parce que quand même noble la te bi uh-huh. ñu jógee ñun di pousse gars yi naan leen programme programme. il faut ñu xaar ba ñeneen ñi génne seen programme. Uh-huh. parce que am na ñu topp si gannaaw Ousmane nee nañ ñu ngi xaar. Ousmane ah. nee na moom lancé na ba pare mu ngi xaar débat bi. Mm-hmm. léegi nag dañuy ëffal ku wóolu sa mbër rek nañ taxaw xool. parce que Ousmane moo war a gën a jege raison bi parce que moom du libéral parce que lim teg du ligne libéral. waaw dëgg la parce ah. du libéral du socialiste. Mm. tax nag léegi dañuy tey parce que. bu fekkee ne programme boobu la ñuy teg pour libérer suñu pays dañuy war a mel ni cubain yi loolu moo tax cubain yi Amérique mënalu leen dara. Hmm. parce que ñoom ñoo porté programme bi di ko xeex ak groupe bi Castro. peuple bi daf ko gëm. Hmm. bu ko peuple bi gëmee kenn du laal programme bi waxuma la ne kenn du laal Ousmane kenn du laal équipe bi koy def on s'en fout de l'équipe le programme d'ensemble peuple bee ko moom. kenn du ko lal ku ñu laal ñu dee. loolu mooy racine bi. waaw moo tax ma ne moo tax ma ne ñi ànd tey à cent pour cent ak Ousmane Sonko. Mhm. ñoom ñoo def nañ benn erreur. moo tax mhm. Ousmane Sonko au wax nañ ko Ousmane dóor nañ si loxo yi barki démb daje naa gars yi avant ma jógee Dakar wax nañ ko ko ne ko eh, parce que dañ mm-hmm. leen provoqué Ousmane daf na leen programme lay euh, discussion lay xaar débat gars yi génn di ko saaga maam di naan sa nijaay nii sa baay nii sa nii da naan sàngara sàcc nga ak yooyu waroon ne tekk du wax na ne tekk koy ruux am famiyam bi famiyam bi nag dugg si aussi naan gars yi mm. sàcc ngeen Ousmane mer jóg rek dem mais doomu aadama la doomu aadama la. Hmm. mu tontu foofu. il a perdu waru ko def dootu ko def waru ko def. moom nee na leen hmm. débat wóolu na boppam na gars yi ñëw toog ak moom débat. léegi dootul wax dootul ibbi làmmiñam na bàyyi famille am ko gëm cent pour cent. Hmm. ñu ñooy tontu jàkkaarloog ñi mag yónni. mais moom li ko intéressé c'est l'équipe gouvernementale ak ñeneen ñi bugg a nekk président te nara laal seen programme bu ñuy comparer nag ñoom seen programme ak Ousmane ñu daje jano devant tout le peuple sénégalais hmm. foofu la ku nekk nag xam sa mbër lu mu gàddu ak ñu nekk si loolu war am sax mais loolu moo war a am grand voilà mooy li ma wax chaque fois élection élection présidentielle dafa sori dañu war a def élection des programmes parce que ñëpp ñi nga xam dañu war a war a présenter candidature présidentielle dañoo war a xam ki ñu jox suñu dëkk ban ban ban ban intelligence la am ban capacité la am fan la toll ci xalaat naka la toll naka la mel. donc du ñu ñëw rek ñu du ñëw rek ñoom ñëpp jour ba jot na rek kenn ku ñëw yow taxaw rek yor yor sa yor sa kii damay présenté woo war am nañ teg programme yi sénégalais yi déglu xool. kan hmm. moo gën a xarañ. ban hmm, hmm, programme gën a tegu. lan moo gën ci réew mi lan moo ci mm-hmm. intérêt Sénégal parce que mm-hmm. ñun suñu intérêt la ñuy xool xooluñu intérêt politicien bi Ousmane Sonko moom mooy candidat moom mooy candidat wu Pastef Ousmane Sonko idée bi mu am mooy idée wu gis bu demee ba mm-hmm. génn ci loolu Pastef da koy teggi teg fële parce que Ousmane Sonko mooy du affaire bi mais Pastef mooy affaire bi donc Pastef moo am euh, euh, idée wu yooyu yëpp pour taxaw pour defar Ousmane Sonko mu jiital ko donc loolu la Mhm. pour man nag dañoo war a daje avant ñuy wax loolu yëpp dañoo war a daje ñu jàkkaarloo comme niñ ko daan daan nañ ko def nag pourtant pourtant ay débat daan na am jamono yaa Abdou Diouf Abdoulaye Wade ay yooyu Senghor yo débat daan ah ah, ah ah loolu mbaqus la woon mbaqus xam nga li <laughs> eh, eh, programme su fi am <laughs> non non eh. non non mbaqus non débat laa wax débat waxuma programme mais débat débat <laughs> débat les promesses ça n'engage que ceux qui veulent y croire mun nañ toog débattre lu leen neex mm-hmm. mais débat nag mun nga wax ne lii lii lay def faisabilité bi il faut ñu xool ndax mm-hmm. c'est faisable ou pas man mun naa mm-hmm. toog fii ne la doomu jàmbur toogal xaar ma maa ngi lay indil weer wi boo toogee di ma xaar nag c'est ton problème <laughs> donc par rapport <laughs> non non débat kay gars yi fi dàq débattre mais débat ak des arguments teg benn vision en amont Mm-hmm. wane faisabilité am bi après teg ko. Mm-hmm. kooku ki ngay janoo ki ngay janoo ci conviction gëm ko ak teg faisabilité am mm-hmm. ñu comparé. peuple bi comparé. peuple bi ne bii bëgg. bu peuple bi gàddoo bi mu bëgg. gàdduwul sax parti bi ko bind. moom si parti bi la bokk léegi. peuple bi daf koy gàddu. kooku la ñuy tette. kooku la ñuy tette. kooku la ñu war a xaar ak patience ak détermination c'est à mm. partir de là nag la ñuy wax affaire na ak élection mm. tout dépend ni muy demee parce que élection mun na bañ a am des saawaay tout dépend waaw dégg naa loolu dégg naa dégg naa ñu waxtaane nag ñi ci xaw nit ñi di ko xaw a di ko xaw a laam-laame mais loolu gën a loo ci xalaat élection mun na bañ a am man de am na nag benn moment de trois à moi mm-hmm. bu dépend ren si man rek waaw ma bloqué ko am na benn condition boo xam ne bu fekkee ne moo nar a um ma xëpp si suuf. yaa ngi dégg yow yaa ngi wax léegi affaire yi yaa ngi génne sa carte di wane. waaw. on a plus de deux millions de carte yoo xam ne kenn xamul fu mu nekk. effectivement dem naa man dem naa Anvers dem naa Bruxelles pour récupérer pour xool pour xool nit ñi ndax jot nañ seen carte. mais am na ci ñu bëri ñoo xam dañoo yegg si di kaas. parce que sen carte et puis ñoo xam ne sax ñoom ñoo ma njëkk déposé ah. man mars la dépos te am na beneen mais am na ñoo xam ne depuis daaw seen bos jotaguñ ko ba tey. au niveau des parrainages. au niveau des parrainages. on va se retrouver avec peut-être quatre candidats acceptés te am na ñu bari ñu nekk ci liste yi duñ candidats yi dara épouvantail lañ. mais yow grand nag nga gisee nag nga gisee en tant que président sortant di di wut parrainage est-ce que loolu c'est normal. Macky Sall c'est un candidat d'office. waaw mais attends. yow yow mais loolu est yow xool nga xool nga fiche yi candidat kii parrainage yi. waaw. fiche yi mun naa am deux millions de fiches yoo xam ne suma ma tur si. xam nga li ma la wax. Hmm. mun naa am ay fiches yoo xam ne fiches yi am na ay parti yoo xam ne mun nga ko remplir parti bi benn fiche benn la moo tax. le PDS a bien compris. dem defar ay fiche ak étiquette am. Mhm. mais à l'arrivée gars yi mun nañ ko bañ mais fiche yi ñu joxe yow c'est anonyme mun nga ko remplir lu te bañ a def turi candidat bi bañ a def APR wala nga def PASTEF wala nga def réew. waaw mun nga fekk bambagey Gueye mi nga xam ne amul caution nga jox ko caution jox ko jox ko quatre-vingt mille fiches ah parce que Abdourahmane Ndoye nee na tactique politique la. effectivement nee na tactique politique la. dañ ko bañ a wax mais loolu la. Mhm. loolu la plus les cas les deux millions de cartes yi nga xam ne xamuñ fu mu nekk ah. waaw ah, parce que ñoom nee nañ nee nañ nee nañ kuy votel Macky Sall ku nekk dinañ la jox sa bos dinañ garant dinañ dinañ assuré ba nga jot sa bos mais ku votelul Macky Sall moom yoonam newu ci. non xam nga nag des fois xam nga li ñuy wax <laughs> xam nga li ñuy wax nogatu nogatu. xam nga li ñuy ah. wax noggatu noggatu. <laughs> noggatu ah. <laughs> waaw. gars yi dañu jàpp si bi di ñu raqueté quoi. di ñu travail au corps quoi. <laughs> mais dina jeex nag de. mais dina ah jeex la grave parce que fi mu toll nii fi mu toll nii on mais xam nga loolu la moo tax may rey. xam nga dañ daan wax naan l'an deux mille atum naataange la dañ ko daan way. man moo tax may xam nga waa ji mun na lay noggatu noggalu. ah yàlla da nga fàtte affaire yi firaawoon na. Uh-huh, waaw. exactement mun na la teg nattu mais natu bi mun na dem ba foog ne moom moo raw yàlla. Mhm. xam nga foofu la réeré. effectivement. bés buy jaaxaan daf koy bett. effectivement dëgg la de. bàyyi ko muy dóor rek ñun nañ encaissé rek. effectivement loolu ah. dëgg la parce que parce que exemple ella là ah, Abdoulaye Wade musu woon xalaat ni Macky Sall moo koy daaneel. non xam nga <laughs> xam nga xam nga paa bi ni ko taal si la doon waxee salopaar bi njomboor la ko paa bi biñ génnee 23 juin mu yóndu gis ne kii bi rek mu reculer paa bi kàccoor la xam nga sama a papa boobu <laughs> mais c'est moom moo gën a muus eh. moo gën a ñeme. mais da ngay eh. xam ne ku mel ni Macky Macky ragal la xam nga ragal bu la eh. njattee bu la njattee. kott ragal du bàyyi. laa ilaha illallah bu amul at yi wóor nga bàyyi dégg nga fu mu ut fu mu yoroon de kon tapet la kon tapet mais grand de façon merci beaucoup sa intervention kontaan <laughs> nañ bu baax quoi kontaan nañ bu baax ci intervention bi jërëjëf ba yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla sàmm amin <laughs> amin amin grand amin amin merci beaucoup amin <laughs> ciao jërëjëf waaw jërëjëf voilà gis ngeen loolu kon c'était Bamba suñu grand la moom tamit participer ñu ci live bi vraiment euh, mooy lii rek Sénégal moo am lii di leen wax ni leen bu leen fëkk yóbbu nekk leen ëkk bu leen ngelaw yóbbu sam papa ko daan wax lu sam papa di wax la ëkk laa ngelaw du ma yóbbu donc yéen ñëpp damay ñaan sénégalais ngeen nekk ëkk bu leen ngelaw yóbbu parce que romb nañ romb nañ foo xam ne alal la ñuy jiital romb nañ foofu ñun dañuy liggéey dañuy jéem a góorgóorlu ngir suñuy doom ëllëg ak suñuy sët sëñ Abdou Khoudous wax na ko nee na dinaa nangu doon jaam waaye duma nangu sama doon doom jaam donc mooy ni que dañuy fexe liggéey ëllëg ñu añ ngeen añ suñuy doom mën cee añ mooy li sëñ Bamba waxoon bi dem ci géej ga maa ngi dem liggéey ngir ëllëg ngeen mën a añ kon sëñ bi daf ñoo liggéeyal ñun ñun tamit dañoo war a liggéeyal suñuy doom ak suñuy sët mooy ni nañuy nañuy nañuy am xel ndax suñuy doom ak suñuy sët yi ñooñu mën nañoo bañ am xel ndax xelu xale lañ jàpp xamuñu la xew ñun nag ñoo yegg ci majeur ñoo yegg ci mature boo xam ne xool nañ ki nga xam ne moo gën ci Sénégal ki nga xam ne moo gën ci Sénégal ki nga xam ne moo yóbbu Sénégal foo xam ne dana dépassé fii parce que mënuñoo am indépendance depuis 1960 ba tey te ñu nekk ci fi ñu nekk ba léegi buñ reculer sax maanaam benn escalier lañ jot a yéeg ci loo xam ne mën nañu ko rafetlu ni maître Ablaye wàdd moo ko poussé ba ñu yegg foofu ci escalier bi ñu yéeg kon nag fi ñu toll ni ñun bëggatuñ ku ñu redressé dañu ñu dellu ginnaaw bëggatuñ loolu dañoo bëgg a progressé progression bi mooy lan dañoo bëgg a jëm ca kanam wax dëgg yàlla kon léegi dama ne ñaan sénégalais yëpp ngeen doon ëkk bu leen ngelaw yóbbu bu leen wax ji yóbbu bu leen ñi yàqel di yóbbu bu leen ñi nga xam ne gëmuñ dara di yóbbu bu leen hypocrite di yóbbu bu leen ñi nga xam ne amuñu conviction ak ñi nga xam ne ay baadool lañ dañuy lekk maanaam seen bopp lañ xalaat c'est des intérêts personnels ba nekkul intérêt boo xam ne population bi la nañ nekk ay patriote nañ gëm suñu Sénégal nañ xool ki koy defar ñu jox ko suñu dëkk waaw ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñi nga xam ne teewe ngeen ko ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu fekkee waxtaan bi ñu leen di sant ah, di leen jox deg dig daje